premier texte de loi pour encadrer loolu yëpp yàgg na je pense que si je ne me trompe c'était depuis 2008 ci la ci commence état bi jël ay motuwaay xëy na nag euh, nit ñi sentir guñ ko woon parce que xamaguñ woon euh, maanaam mbir mi fan la mun a yegg euh, ci loolu état comme ni ma la ko waxee commencé na ci liggéey yàgg na parce que bu ngeen gisee ñu am sañ-sañu taxaw fii dañoo bokk ci ay kuréel yu mag au niveau international di xam yëfi ni muy évoluer Euh, au niveau de lu l'Union africaine ñun ci bokk ci benn euh, kuréel bu mag boo xam ne wii protect lañ koy tuddee parent yi aussi ci lañ bokk parce que il ñu ñaax leen ndax bëri na dérive yoo xam ne parents ñàkk xam a tax xëy na ñu koy def mais parents bëri ñu ngi jël jumtukaay yooyu xarala yooyu di ko jox xale yi te xamuñu ne seen santé mentale c'est un dafa nekk un jeu yeneen ak yeneen mu ngi ci ñàkk xam dugg sit yenn sit yi ñuy dugg